nan lañ leen mën a jàppale ndax xam nañ ni jamonoy nawet bi euh, jàngoro yi day bari surtout euh, sibru bi ak genre yooyu yëpp dafay bari en plus indaale nañ fi garabu soj yi ak genre jaare bi itam dañuy xool ni day fréquent au niveau des village en plus des infections itam daf fay am buy que ni ñoom des fois dañu am problème accès ci euh, ci santé bi ndax des fois poste de santé bi mën na leen a sori wala muy gën a joxe moom bu dee ci xale yi xale yi moom déparasitant yi lañ ëpp lu leen di jox

ce qui veut dire que ñoom ay anti inflammatoire lañ leen di jox am na ñoo xam bu dee bu boo xam dafa simple da nga leen di jox paracétamol rek am nañ fi tam ay cas xam si seen tension day yéeg mais ñooñu dañ leen jox benn boo xam day mën wàcc tension mais après dañ leen di pour ñu dem ci hôpital yi ndax tension dafa doon loo xamante ni si du question da xool benn jour rek xam ba xam tension bi yéeg na wala normal dina ko mën a wàcce après nga orienté ko mu dem hôpital mu def ay test 3 3 à 4 fois léegi nag ci lañ mën a xool ba xam moom hypertendu la wala déet en plus itam am nañ fi ay euh, antidiarrhéique mais lim fi génnagun bareegul am nañ fi fer itam ndax ku wax feer sa xel day dem ci xale yu jigéen ñi seen réglements yooyu li ñuy perte ci deret dafa bari. buy gën a ñoom sax farataaluñu ko mais normalement duñ ko war di jël heure bu jeexee duñ ko war di jël en plus itam antipaludin yi mi ngi fi expliqué naa ko sànq nawet bi yooyu. am yëpp day day dafay am en plus am nañ fi ay antibiotique li ci mel ne amoxiline am nañ ko am nañ fi cefixime am nañ fi tam euh, matériel boo xam si ay dentiste bi des fois dañu dañu doon nekk en collaboration avec moom am nañ fi ñoom dañu am problème mu problème mu bëñ ñu ñëwee dañ leen jox traitement à courte durée rek après ñu orienté leen hôpital soit dañuy dem ñu bi wala ñu dindi ko am nañ fi aussi litakoldu soj bi dafa bari am nañ fi aussi siro siro siro soqat Euh, on est là pour accompagner l'association des étudiants de Ngavu, et ASC Ngavu C'est deux journées La première journée le 15 di et le deuxième jour consultation gratuite là on, on essaie d'assurer l'intérim comme étant l'ICP, journée de on a, on a collecté énormément de sang. Euh, collecté une, soixantaine de, qui de poches. Aujourd'hui, on fait les consultations gratuites avec les dons de médicaments. Quoi. Donc, nous remercier qui nous ont remercier, remercier ci geste bu noble bi ñuy def ba nga. waaw li li nga wax moom loolu tamit dañ ci am kontante parce que santé moom nekk na loo xam ne lii ñëpp dañ cee war a bokk fi ñu toll kenn ku ci nekk dañ cee war a sóobu sa loxo parce que mooy tax fi ñu toll nit ñi ñu am maanaam euh, lu jëm ci wàllu wér gu yaram. parce que ñun toujours comme te ñun dañuy faral di wote askan wi ñuy defal lu jëm ci walu sensibilisation di def euh, comme causerie di def VAD di def mobilisation sociale bon bu ñu amé ño xamni ñu ay yenen partenaire xamni ay xalé ay tamit yu dëkk tamit ci gox yi ñu jàppaleñ tamit lu jëm ci walu communication bi ak ak euh, sensibilisation ak ak ak ak euh, ñuy def don de sang tamit lolu dañ ci am mbégte bu baaxa baax. ñuy woote tamit ñi nga xam ne ni initiative bi nga xam ne bii ASC Nanti def na ko tamit ñu bëgg tamit ñeneen yi tamit ñu ñu ñu ñu jàpp ci bu baax a baax surtout ñi nga jeunesse yi nga xam ne dañoo nekk ci communal bi. loolu tamit ñoo ngi leen ci woo bu baax a baax yeneen ASC yi tamit ñu dem comme activité bu mel nii loolu tamit bu amee dañ ci am mbégte bu baax a baax. man maa ngi tudd Ali Ka man maay président acteur santé communautaire district de Mbacké en même temps ma nekk euh, point focal. du Dame Sow. man maay euh, président tubaa Mbacké santé Touba Mbacké santé nag benn structure la boo xamante si nii mu ngi regroupé ay médecins ay pharmaciens ay dentistes ak ay paramédicaux yoo xamante si nii ñu ngi dëkk ci diwaan bii di Touba ak Mbacké ak aussi ay étudiants yoo xamante si nii ñu ngi ci université yi di jàng nekk ci domaine médical bi donc euh, dañoo am habitude chaque année ñu organiser des campagnes médical au niveau des localités maanaam yi nekkee Touba ak Mbacké maintenant chaque année dañ koy def benn bi dañ koy def. Touba, ben mi def ko Cette année, on a choisi de le faire en collaboration avec euh, l'association bi ci association des élèves étudiants de Ngabo donc euh, ñom lañ nekkal en collaboration ci activité de di consultation gratuite ak don de médicaments qui est précédée d'une journée de sensibilisation donc euh, loolu la loolu mo moo journée bi maintenant spécialité yi nga xamanté ci ni mom lañ fi def amnañ gynécologie la aussi médecine générale pédiatrie ak euh, consultation dentaire gériatrie ak euh, soins infirmiers donc tout ça def nañ ko fi ak waa odonto aussi mooy soins dentaires yi ah, loolu loolu daal moo nga xamante si ni moom lañ euh, amal comme spécialité fii nii ci ci Ngaabu ah, muy première journée bi nag parce que am na yeneen journée ñu war def incha allah suba Kayel parce que comme d'habitude ni ñu ko war di defee 48 heures la def chaque année donc première journée bi lañ def fii nii donc nag ñu ngi sant bu baax association nga xamante si ni ñoo nekk fii muy. waa ay e bi ci seen njiit wax dëgg fa yàlla dalal bi am na solo depuis collaboration bu léegi ñoom ñu ngi def lépp loo xamante si ni moom lañ mën pour euh, journée bi réussir donc collaboration ñaari nit ñoo koy def ñu ñoo indi ressources humaines bi et tout donc mais ñoom tamit ñoo assuré tout ce qui est médicament tout ça donc ñu bu baax daal ci collaboration bi accueil bi rafet na euh, organisation bi aussi mucc na ayib donc ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax. Hmm. waaw comme ni ma la ko waxee rek Touba Mbacké santé moom njariñu askan wi surtout waa Touba Mbacké moo ko tax a jóg donc loolu moom moo tax chaque année ñuy organiser campagne médicale ci localité yi nga xamante ne amuñu benn accès bi ci ci ci domaine médical bi ndax am na ñoo xamante ne dinañ bëgg dem hôpital mais amuñu mooy surtout ci yenn zones yi nii loolu moom mooy tax ñuy journée yi ñu koy gën a privilégié ci village yi environnant Touba yi moo tax ñu choisir dala parce que nit ñi dinañ bëgg di dem hôpital mais moyens ça fait défaut duñ mën a dem dagg ticket consultation médicament et tout donc ñun bu fekkee ne ñun mën nañ leen apporter loolu defal leen consultation gratuite ba pare may leen ay médicament donc ñun foofu la ñu yàlla féetale foofu la ñu mën a jàppale donc ñun si loolu laa la ñuy Touba Mbacké Santé ci action sociale yooyu ci la gën a mën a taxaw pour jàppale ci askanam donc nag ñuy sant baax population parce que woote aussi ñu ñëw yombul mais loolu aussi tamit ressources humaines moo ñu ko may ndax am na ay docteur am na ay am na ay spécialistes yëpp ñu ngi fi donc loolu mom moñu permettre aussi peut-être confiance bi ak étudiants yi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi jang aussi ñom tamit paré pour dimbali sen askan donc loolu mom peut-être mom mo waral confiance bi et tout donc loolu mom ñu ngi ci sant bu baaxa baax. xanaa kàddu kàddu mbekté d'abord parce que euh, xawoon nañ ci par rapport ak organisation bi 48 heures yi parce que yombul c'était pas facile mais avec l'engagement de l'ASC e Nanti euh, ñëpp nak avec euh, l'association des élèves et étudiants nous avons aussi commencé depuis 8 heures Nous euh, Touba remercié santé remercier ci collaboration depuis 8 heures ñu ngi fi par rapport ak organisation bi commencé à temps def dis euh, def seen dispositif euh, par rapport ak pharmacie ak yeneen euh, yeneen spécialité yi ñu commencé population bi génn waa ngaa bu génn ak ñi nga xamante ne ci commune Dalla bi yëpp lañ nekk am na sax gis naa fi ñoo xam ne jóge nañ Touba pour te dire rek importance su solo bis bi parce que santé dafa doon loo xamante ne yombul ñu bëri seen loxo jotu seen gannaaw donc buñ ko defee ñu am xalaat bi indi leen ko fii nii indi ay médecins ay spécialités yu différents ñu ñu comme ñu defal leen ko faj leen may leen ay garab donc da doon quelque chose boo xamné ne lu am importance la ma ci euh, ma ci remercier en tant que président euh, kii ne toute laïc e, di ci remercier également euh, élèves et étudiants association bi di remercier ICP bi nga xamanteni mom mo fi nek bi nek digan ak ICP bi nek Dala yep di remercier mention spéciale à monsieur le maire Mademba Diouf nga xamanteni bayiwuñu ben yon depuis biñ koy xalaat ba nu mu accès démb ba tey mu ngi ci dugal loxom di ci dugal cionom et tout ça vraiment kontaan nañ daal te lii nii ñu def nii nii dañ ko bëgg doon benn activité boo xam ne day pérenne dañu bëgg de sorte que euh, fii déwén aussi ci même période bi ñu organiser waat lu mel nii puisque cette année ay novice lañ ci woon peut-être am na ay yenn manquement dinañ rectifier incha allah si déwén ñu jéem a xool nan lañ koy réorganiser pour ñu xamante ne population Ngaabu ñoo ci am ñoo ci bénéficier wu et toute la commune de Dala Ngaabu. Euh, jërëjëf ma Moussa. Euh, ñu ngi lay nuyu yow di la euh am mbégte mu rëy tay nak ci journée tay bi muy consultation gratuite euh ASC Nanti ak euh, l'amicale des élèves étudiants organisé ko euh duñu def li di remercier leen bu baax euh, di leen ñaanal euh parce que li ñuy li ñu def tey population bi lañ ko défal commune bu Dalanga bu yëpp lañ ko défal opportunité bi ñu jox tay nit ñi ñu ñëw fi faju ñu commencé que depuis démb Euh, benn don de sang bu am solo dëgg yàlla ba nga xam ne ñu fi ñëwoon kontaan nañu parce que gis nañ nit ñi génn nañ maye deret ñu xëyaat suba ñëwaat ñuy consulter maye garab loolu am na solo ndimbal la doomu aadama nag ku ko dimbale si wér-gu-yaramam kooku kenn mënu laa fay kon ñoo ngi gërëm bu baax di sant amical bi ak ASC bi di sant tamit waa Touba Mbacke sant ñoom tamit ñoom ñi leen yombalal lépp ba liggéey bi sotti yéen tamit presse bi ak ñëpp gis nañ jàppale gi ak kumba dalangaa bu yëpp kon du ñu def li di leen suñu borom kàttanal leen yokk leen ba chaque année nga xam ne eh, dina journée mel ni dina fi am law ba si commune bi yëpp ak département bi yëpp am nañ si mbégte daal comme lu ma leen waxoon ñu dinañ leen accompagner ñun tamit lu si xam ne suñu taxawaay te mu war ñu dinañ ko def ndaw nag day utile utile mi ngi commencé si lay jëmale kalam sab gox nga nekk sa sa dëkk ba nga dëkk sa commune ba at lu ko wër loolu moom maa ngi leen si ñaax di leen si sonn bu baax si ndaw yëpp ndaw yi bi yëpp kenn ku ne daal lépp loo xam ne lu baax la mu si si wér-gu-yaram mu si setal mu si toppatoo fa nga dëkk bu leen si kenn man na si ñëpp taxaw voilà. ah mooy soññi leen ñoom ñëpp rek ASC e bu ne fa nga nekk. parce que tamit ASC bi du du du rek dama koy wax du football kese mooy war a nekk seen taxawaay war nañ di setal di lu ñu mën a def si activité si loo xam ne dimbale doomu aadama la euh, taxawu seen waa dëkk la seen waa commune ñu nekk sax loolu maa ngi siy soññu ñëpp ñu taxaw si journée yu mel nii boo ko deful si lii nga def ko si set def ko si reboisement def ko si lanet loolu ma maa ngi siy soññu ñëpp ñun daal lu si nit taxawal rek. dinañ la accompagner dinañ la jàppale dinañ la gunge xam nañ ne la ngay def commune bi yëpp nga koy defal askan wi yëpp nga koy defal